jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi ñu daan nuyoo tey bu ngeen gisee toogaay bi xam ne ndaanaan lañ seet si champion lañ seet koo xamante ni géej nañ koo gis ci làmb waaye bàyyiwul làmb benn yoon bu ngi gisee toogaay bi nag xam ne wasaare làmb ci làmb rek lay dox di nuyu soxna Fatima ak ak Adama mii ma àndal Fatima ko xool ba ki xam ne seeti seeti na ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Niang su mu nee Cheikh Tidiane Niang nag xel yi dem ci diggante Cheikh Tidiane Niang ak Ndongolo mu nekk làmb joo xam te ne làmb ju neex la mu nekk làmb joo xam te ay naataangoo lañ ay moyoon nañ ci taay gabar yi ah daanaka lépp ñoo ko tooloo di nuyu promoteur bi nga xamante ni moo ko taxawal muy ndaanaan muy ki nii ñoo koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko béggee Ndongo Lo maa ngi lay nuyu. Ouzin ñu ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla jur si yonent bu sama ñaari waajur maa ngi nuyu papa moom mootal yaay yu baax. Mm-hmm. di nuyu waa Grand Médine di delluwaat di nuy waa Grand Médine di delluwaat di nuy waa Grand di nuyu waa parcelle 1 ba surtout waa 18 ak waa 22 di nuyu mbokki nekk cees ak képp ku supporter Ndongo Lo ak euh, ñi nga xamante ji xam dañ may ñaanal te gisuma leen maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. ñu ñëw nga ju nga jub si làmb waaye balaa ñu ñëw ci làmb ji il faut ñu fàttalikoo tuuti kan mooy Ndongo Lo ndax boo bu ñu bu ñu bu ñu fàttalikoo tuuti gis nañ làmb ji taxaw na dafa taxaw commentaire yu commencé jub Ndongo Lo lu ko duggoo ci lii Ndongo loo xanaa amul plan de carrière Ndongo Lo kii ak mën Ndongo Lo kii ak ëpp gàllaaj nga dégg loolu mu def la lan te combat bi ñoo ngi doog moo ngi doog a taxaw. làmb moom dafa baaxoo ab coow. Mhm. làmb yu mel ni yàgg na fay am. Mhm. di warul jël kii diw lii diw lii mais yàllaa ngi fépp te man moom ay naataango lañ. Mhm. amul maa ko jiitu si làmb amul jiitu ma ko si làmb làmb moo ñu boole ma ne moom ñu war a bëri di ñaan rek yàlla may mu dem ci kawam mais commentaire yi moom liiruma ko mais ñu ma koy wax. Mhm. mais yooyu mënu ma déstabiliser ndax combat bu ne am naa ko fi. balaa ñëw ci làmb ji damaa bëgg nit ñi seetaan fàttalikul mooy Ndongo Lo ndax ñu ci bari ñoo ngi naan euh, Cheikh Tidiane Niang moom mooy Ndongo Lo Cheikh Tidiane Niang moo ko ëpp galaaj Cheikh ko dàq ba te Ndongo Lo ko xam-xam ko ci làmb Ndongo Lo ko xam-xam ko ci ndaanaanam ndax boo bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw ñooy wax Ndongo Lo ni bëy matul ni mbër mais fu mu jàpp mbër wala ku ñu ne Ndongo Lo am say mbokk du ñu nalaw Ndongo Lo lan moo waltu Ndongo Lo bi. waaw Ndongo Lo bi lenn la woon rek. Mhm. su ma yaay ko bëggoon. te man xam ay son bëri dama ko doon déglu daal. Mhm. ma gis ni ba mu génnee àdduna ba léegi xam benn Ndongo Lo ne ko xam te la si wàllu way mën naa tooy si bopp Ndongo rek ñu xool lu yàlla def. Mhm. parce que ndaanaan nga te ndaanaan moo tax nga war a mën a tuddee si bopp Ndongo Lo. non nekkaguma ndaanaan. nekkagoo ndaanaan. Mhm. ñu doon wax Ndongo Lo la ñooñu moom fu ñu ko tegoon. non ñoom ñoom bu leen neexee ñu wax ko xam nga saabu du fóot boppam. Mhm. waaye boo gisee Petite xam ne saaboo fa jaar. waaw mën na nekk omo tamit de. waaw ah. mais du ma ndaanaan <laughs> bërekat laa. bërekat ñu mhm. ñëw ci say combat mhm. Ndongo ñaata komba la def. ñu fàtte bi ma nekk làmb di fàtte ñaata combat nga def. teemaa laaj Saliou boobu. incha allah ay 17 combat yooyu. 17 combat. kañ nga dugg ci làmb. lam maa ngi ci dugg le 11 janvier 2013 jour combat King Kong Sococim Thiatou Laye Bèye maa bëri premier combat bi. ok boobu nu mu la fekk nga toll. boobu maa ngi posé 65 kilos. 65 kilos daal posé ku ma woon bëree mi ngi posé 104 kilos. lamb ji 29 secondes la. waaw non attends bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay jël avance bi gisoon nga ki ngay bëreel wala boog ci stade bi nga ko gisee. non xamoon naa ko. xamoon nga ko avant làmb ji naa ko lu tax nga jël ko. waaw parce que dama gëm ni mun naa ko daan. dafa mënul woon bëre wala fa nekkoon para yoo nga ni mooy loolu. non mënoon na bëre amoon na doole mais xam yàlla bu lay jàppale xoolul doole xoolul ngande. Mhm. da jàppale rek. loolu la ko amaan yàlla mu mënoon jàppale rek. nga dugg si bi nga dugg see si stade bi yow xam nga ki nga bëreel mais ñi nga àndaloon bi nga gisee ki nga bëreel nuñ combatoo ak yow. waaw ñi ma àndaloon ñoo ma gën a xam ko ki may bëreel. Mhm. waaw parce que man moom bëreeg lu dafay neex. loolu moom dama daf may waa quoi. bëri nga mën a wane nga mën a wane say qualité wane sa caay-caayu làmb. non pas qualité pas caay-caay sax fii ku mën amu fi ku yàlla jàppale rek fi nekk. mais nangu loo noonu nañu waxtaan ñun sa bëre xam nañ ne da ngaa waane da ngay taxaw xam ma sëgg si gi déplacé wu yooyu noonu dafa bokk ci làmb te yooyu yooyu da nga koy def yooyu ci waane la bokk. loolu loolu amaana ñu may bëreel ñoo koy ñoo koy provoqué rek ma ànd seeg ñoom ñu may bëreel ñooy provoqué loolu ma ànd ñoom. mais nekkul maa ngi provoqué parce que man mënuma dara. nga bëggee combat boobu daan. ak état bi nga toll nga bëgg ñëwaat naka la demee après. waaw après bëri naa c'est mon premier combat daan mais jubilé ma parce que dugg moom ci laa ma demoon yëndu rek xam nga. fekk boobu toj nga mbapat. waaw boobu man moom toj naa ko moom mbapat moom toj naa ko waaw. bi nga bëggee premier combat ñaata at la la fekk nga am. 18 ans. 18 ans. 17 ans laa mun ñoo sama at. mën a am licence mën am licence. nga jógee fa après bëre kan. mu deux fois si laa bëri Koulibaly 2. mu caare sa deuxième combat Koulibaly nga mu laa bëreel boobu ah, mu boobu moom daf maa rëcc mu ngi tegle quatre combats quatre victoire tegle woon jox ma ko ci nuwal borom ma daan mu jóge fa ñu jox ma caatu Saloum. caatu Saloum. combat spécial diggante Moussa Balla ak Kéré Junior. Mhm. yàlla kattanal ma ma daan ko. nekk trois yàlla kat na ma daan ko. jour combat Gris 2 Auguste. Auguste combat ci la ma bëreeg Bougane bu HLM. waaw ma daan ko. sama sixième combat ci la ma gàkku 2 daan. gàkku 2 fu may bëggee làmb lañ ma daanee. la ma nga jël gàkku 2 nga xam gàkku 2 ci mën a bëreem ci ndaanaanam ci bëgg làmb lu tax nga jël gàkku 2. waaw xam nga làmb moom du biir day xëy rek wasin te moment boobu xam ak ah, fu ma toroon si làmb ak moom fu ma toroon si làmb yow yaa ko laaj. non man ama habitude yooyu mais damaa ne ku ma làmb boole rek man war naa bëri yow. nga jël ko mu daan la nga jóge fa jël kan. mu jóge fa jël boo yëmbal. boo yëmbal mel na. daan ko suma xarit suma xarit la léegi. nga koo daan ba bëgg a gaañoon ak moom. non jóge fa jël Pape mu duggaat yëmbal jël Pape daan ko. ci laa jël bébé bis mi mu daan ko jël ñàkk jariñu mu daan ko jóge fa jël pëdd ñaa daan ko jóge fa jël ndigal daan ko. ci laa taxaw sa combat yaa ak ndigal ñu gis ndigal nekk tamit luur nga bëgg moom mais combat bi baat ak tontu la. lan la ndigal dafa nekk woon ci daal parce que dama gis nga daal ci kawam ak mu daanu. non làmb stratégie la. xamaguma làmb ndax nekkaguma mbër. non mais yaa ngi entamé say combat ak entamation bu baax. waaw loolu amaan na yàlla ma suturaal rek. Mhm. mais nekkul sama mën-mën nekkul sama xam-xam. ndigal dañoo jël combat bi mu jàkkaarloo mu ne kii fee saison moo ñu boole. mais làmb boolewuñu man ko xeeb nga xale mu lekk sa daay. wax dëgg mu waxoon nag moom la àndaalee làmb ja moo tax yàlla kattan na ma jël bu gën a yomb mhm. nga lëwtoog moom daal daal ci kaw mu daan mhm. waaw combat bi yombul trop mhm. yomb na de victoire du yomb waaw mais làmb ji moo yomb waaw ah, si gis-gisu gars yi dafa yomb mais yombul ci yow mais yombul ci man nga jógee fa amaat kan ma jógee fa saa jël kéwal coow li bari waaw cool yu bari xeex fii ma ak moom. mais lan moo tax lan moo tax Ndongo bu commencé ba làmb ji neex mu bëre kim ki xam ne confiance bi tey xel mi dal na Ndongo Lo commencé foo parce que prise bi nga def noonu ñëpp dañ ne Ndongo Lo da doon caaxaan kenn xamul lu mu def noonu kenn comprendre lul. waaw ah, pourtant làmb essayé rek. parce que ñëw nga natt nga sa bopp ëpp la doole xam nga xam nga ni kii tey ñëwul pour bëre dafa ñëw taxaw pour pour téye boppam nga commencé def yoo xam te ne ci ba daanu. non am na li nga xamante ji yàlla moo ko def si nit. waa senegal moo xam ne ko tey nag. ki sa métier boo ci nekk di ci liggéey ba des ni di la xool jàpp li nga liggéey yaa ngi yàq fekk yaa ngi defar. ay yàq gën a gaaw defar. nit ñi ngay liggéey mu gis la yaakaar ne yow mii li ngay liggéey fulaaloo ko fekk noonu la yàlla bindee yaa ngi koy fulaal. nit ku nekk ak lu la yàlla bindee man ci biir bëre bu ma seetaan ci biir bëre. da Ndongo Lo day foo si biir bëre mais yàlla xam na ni foo ci biir bëre noonu la ma yàlla bindee. Hmm. waaw dañoo waane Modou Lo noonu lay def moo gis sax. Modou Modou la Ndongo Ndongo ni ku nekk ak yàlla may amaana moom loolu lay hmm. kenn ak ku nekk xam xam def quoi mais man ma yàlla bindee. Hmm. di ko nuyuwaale passage Modou nga bëgg kéwél mu daan la nga jóge fa am kan. waaw ci laa jóge si kéwél dugg ci kalaaf bi te kalaaf bi sax bu ma sañu si delluwaat. non mais foofu faaw ñu taxaw ci tuuti. Mhm. mbokk yi comme ni mu leen koy waxee rek gisee ñu jaar fii xam ne ñu ci bëri xam nañ làmb te ñun ñu koy laaj loolu xam nañ ni mu jot a bëri waaye dañu leen bëgg a fàq fàttali ki nga xamante ni mooy Ndongo Lo ak trage bi def li mu jot a def ci làmb gaa yàggu ci waaye am na loo xamante ni manqué na ko am tam ci leen bëggoon fàttali tuuti rek ñu doog dugg si ci li nga xamante ni nii mooy li fi bees li nga xamante ni moo fi nekk nga jóge fa ñëw ci TFP bi nga ñëw taxaw na yëg sa bopp ñëw taxaw ne maa gën a nekk xale maa ëpp doole fan nga teg loolu. waxuma loolu de. loo wax boog. jour jàkkaarloo bi dañoo toog. waaw mbër yëpp toog. mais fii maa fi gën a doole. maa fi gën a nekk xale. samay wax waru fi bari ndax lu ma xam bëriwul. Mhm. loolu laa ko wax. ku ne gis nu mu demee bépp liggéey bu nit di liggéey. te amoo ci moyen doo dem fii ci àdduna lépp lu waay di def si àdduna te amoo ci moyen doo dem yow nga toog. mais léegi la moo nga xam ne yaa ci gën a néew doole yaa ci gën a nekk xale xale sax loolu du ci la ndax mag ñaa ngi fi génne xale yi làmb ji la moo tax nga jàpp ni yaa ci gën a néew doole pare nga dugg seen biir. ndax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu seetloo euh, poul boobu noonu du ñooñu ñoo ci woon ba ay qualifié ci lañ bokkoon. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne di leen mujjee génnee la moo tax nga xam ne ñooñu ñoo ci nekk ñoo la ëpp doole pa nga dugg seen biir. waxin dëggin lay laaj. Mhm. ci boo amee dégg-dégg. te teefee boobu bu ñu toogoon ñëpp bu ñu toogaatoon ma toog wala moment boobu noonu moment noonu. boo ñëwoon gis signature contrat bi. sa xel mu sell da kii moo si gën a néew doole ndax maa si gën a tuuti. mais daan nga ñu toll ni ñoom moo tax mu dugg foofu ndigal kenn ëpp ko si kalaaf bi. Mhm. moo tax mu dugg foofu mu jàpp ne yàlla dina fa may fekk yàlla am na leen leneen ma dencal loolu damaa gëm sam bopp. léegi bi nga ñëwee ci sa premier combat yaa ko la sa premier combat. maa ngi général yaa jotoon am fu ngeen jotoon jaar n'est-ce pas. Mhm. ngeen ñëwaat ñëpp ne général liggéeyul entraîné wul. nga ñëw nanguwul bëre nga topp xeex bi ba mu tuuse la ci gaañ la ci lu tax bëre woo beneen beneen motot wala boo genre moom moo taxawul pour mën a bëre yow. xam nga ku amul bëñ mu neex a jàngal mm-hmm. te bu nekkee njool am benn talent bi ngay bëri ndaama boo taxul benn place ndaama li bu mu jàppale du yomb. Mm-hmm. te bu jëlee risque pour jàppale rek mën ne ci jëlee erreur moo tax te bëri ñaar a koy def. la quoi. taxaw yàlla dogal ngeen bëri nga am décision par habit mm-hmm. nga ñëw deuxième combat nga am kan. ña ci la euh, mm-hmm. nga ñëw yaa Pambaay ñu sentir ne Pambaay da la ëpp doole trop. Ah, loolu la gars yi yaakaar amateur ak supporter ak rapporteur loolu lañ yaakaar. parce que dama gis bi nga ko bi ko dawee jël tànk bi yegg nga ko fa sooy mais teewul benn tànk la dese mais da laa maîtriser ba jàpp la ngeen doo ko bëree yéen ñaar. amaana buy boo ko yoree. doom buy boo ko yoree balaa nga koo dajji ah boo ko dajjagul loo xam loo xam ne si biir. mais boo ko dajjee di nga xam ne si biir. tojal ma loolu. Pambaay sama xarit la. daanaan la maa ngi koy nuyu bu baax a baax. champion la waay la. estor bu muy def foofu yàlla ko yàlla jàppale. amiin. mais lu jeex rek jeex na daan na mu jël bu rëy yàlla na ko ji. non mais di nga ñëwal ci di nga ñëwal ci combat bi. dama bëgg nga ñëw ci parce que da daw jël tànkam mu kal la nga taxaw ngeen jàppante sa loxo appui bi la jàpp lekk ko ba mu jeex déclenché la mbot ngeen ànd dem bi ngay dem loxo bi nga wontee appui moom moom la lekk doole ji la wala. Pamba jël ma daan Pamba jël bu yomb yomb la ma daan jëlu xale la ma daan xale jëlu ku jàng bëri la ma daanee. nga nangu ko. te loolu ci làmb lañ ko fekk. nga nangu mu lay jaan jël bu yomb yooyu. waaw parce que yàlla moo ànd ak moom si boobu. maanaam ku mën bari bëri bu daanu daanu jël bu rëy du daanu jël bu yomb jël bu rëy daanu aman ah, yàlla moo ko jàppale woon rek moo tax. te yàlla ku ne di ko jàppale. nga ñëw yaa ñàkk jaayuñu. premier làmb ji nga jàpp ko bëyaloo ko ba ñëpp xeeb ko na ñàkk jaayuñu entraîné wul na bàyyi. Mm-hmm. na tukki booy bi jàpp ko di ko fooyee nii nga yenn ko ba ci kaw doo ci suuf deuxième combat mu ñëw mel ni ku la ragal te fekk boobu moom moo ngi lii combat bi moo bëree combat boobu tamit. mentalement sama mental moom normal lu woon. ndax li nga teg la ay défaite. waaw te man gagneur sama mental normal woon moo waral lii am mais sant yàlla parce jël génn naa si kalaaf bi dara dalu kon sant yàlla. kon ba léegi maay dox li nooy nii rek kon maay sant yàlla ndax ñaara mun kenn te ñett du bëri. wax ji daa am lu muy wund ñaar mën kenn ñett du bëre. maanaam boo boo maanaam mënoo ñëw séntu nga jóge ci làmb ji da yeneen dal la ci wala boo nga mujjee feneen. amaan ah, sant yàlla ba ma dara darulee man lépp loo dugg rek na la jig lépp loo génn na la jig. te lii moom ma jig kon maa sant yàlla. ñu jógee foofu nga teg li trois défaites ñu jógee fa nga dem Gambie yàlla suturaal la nga bëre fa am fa ndam mm-hmm. dellu si waat dox nga dugg ci ci ci Boy Niang moo la jiitu ci làmb ah raw la ci lu bari nga ñëw bés ci bés bu mag wala cee wane sa bopp waa passé lépp di bëre nga ñëw am ci defet lu dox nga bëre noonu ak Boy Niang. combat Boy Niang de ba léegi man boo koy wax sa arrière la may def ndax xam daan na ma daal. déedéet boobu laa def daan na ma daal daan ma ci bëre nag. Hmm. amul lenn lu ma daalul ci bëre. dama koy sant Boy Niang war na laa mën a daan ci làmb. war na mën daan ci làmb. lépp sant yàlla rek. Mm-hmm.